بهم أرتجي من مالك نصر على سوي شركي بتسليس عين تجور إلى أقصى لا أقصى Kamu barang loh. Masih tiada. waaw ñun pour ñu ne bu ñu ñëwee nag ñaari mbéy si ñu dem ba ay dem. waaw ñu ñu tàllu nag mën a mën a xew. waaw man de man de loolu mooy. teg leen dugg si. jaa jërëjëf. waaw dese bi dama jël ko. beneen bool. ñun dañu doon seetlu. ana bagage yi lépp ñëwul bisim kaay dem yenn yow yàlla yàlla yàlla ah. yàlla

léegi njaareem barab boobee Cheikh Ibrahima tooge woon rek fa laa bëgg a dem moo fa toogee rek lépp dana yaatu sëñ bi ne ko kon bisimilah sëñ bi ba ba na ko ñu wari nag sëñ bi dal di jógee Nja jóge Touba ñëw fii dal di toj lu tabax ba fi nekkoon daal di fondement tabax bi di ba mu àgg bi mu àggee daaw ba ren ñu yi di si sëñ Mourtada mi nga xam ni moo fi toog toogee ab sëñ Touba dikk toog si tabax bi te toogal fi waa réew mépp toogal fi nag ahlu Baye Fall yëpp ndax bu ñuy wax kër Cheikh Ibra fii mooy kër Cheikh Ibra Fall fii rek yaa yor kër Cheikh Ibra Fall dëgg dëgg dëgg dëgg mooy kër gii ndax fi la nekkoon wàcce fi liggéey fi la fi la ko sëñ Tuubaa fekkaat tey toogaat fi nit moo fi toogee rek danaa naata réew mépp toog na fi loolu moom fekkee naa ko man naa la ko ci wax muy lu wér loo xam ne si cee roxee toog na si mutaa toog si mutaa wax loolu ma dégg asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh <laughs> kër gi ca yoonu Touba Gawane. fa lañ doon si Moussa doon raxaloon ba nga xam man man maa toog suñu jëf xel toog bay bay toog ngeen bay toog ngeen bay boobu ñu toog. mooy assuré waaw waaw kër gi daal sëñ Touba moo fi teew tey ci kër maam Cheikh di ñaan bépp taw bi ñëpp nekk yàgg rek lool. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Cheikh Faye wax ji rafet na neex naa dégg yow ñu ngi lay. mel rek baax na naan rek gindi naaru ganaar bi nga doon. Kaza sëñ bi bu baax rek. sant sëñ daal moom bëgg nañu lool. lu toll sëñ Tuubaa bu fi ñëwee dañuy sant bu baax a baax. su ñu am sëñ yàgg fi ñu nga xéwal gaa ngi nii nag gañ. gañ ay nañu naan nañu boisson. ñu ngi sant daal bu baax. Kaza jërëjëf. jërëjëf. ah man mi toog sax di man euh, jox leen bu baax kii kii la kan leen ma. sëñ bi naka ngaan gi ah Moussa Lango na ndax tey Baye Fall sëriñ si ñoo doon bëgg <laughs> nag sëñ Moutala jar fekk na fi Cheikh Rafal fii ci këru Cheikh Rafal. Ah, ndax kër gi dekkiwaat na kër mel na ni mu a mel teeru bi yëg ne waaye fekk na fi Cheikh Rafal mu mat sëkk dara manqué wul. jërëjëf sëriñ bi yàlla na fi yàgg te wér borom ndigal Fall. ñu fekk ñu fekk ñun ñëpp. ñu fekk ñun. daal daal waaw. Matar gerte néew. xaar ay moytu sànni ay bo bouteille ci nekk. xaw lay doj. non banaan bi xam nga ci kaw la. waaw wàcc wàcc. xur wi guddi. Sëñ Ndiaye. am gerte xeetu. Ndiogou Ndiaye nga ne waaw li nga ci liggéey bi la liggéey bi teeru teeru sëñ Mourtala Mbacke ci kër Serigne Cheikh Ndigal Fall ci lañ joxe soxna yi ñuy liggéey liggéey bu sell bi kii nag ndab li nga xam ne moo jëkk ñëw soxna maam say carré lañ koy wax di doom ci sëñ Modou Mbène Kane fii ci biir bi moo ci wàllam ci liggéey bi moo ko liggéeyee. waaw jërëjëf jërëjëf kon lépp ci ngana la li waaw leen kumba ak waaw góor yéen waa Ndiaré tey tey sant sëñ bu yàgg lool ak sëñ sax borom ndigal Fall hmm. ñu koy indi yaa jëfati naka ngan gi waa murit nga ne naka ngan gi waaye ngan gi de doole sant rek xam ne ni moom xéwal la koo xam ne sëñ bi ñu passé nañu doole defar ndax defar moom waa def na fas yéene doole defar daal lii suñu ndam la ñu doon koy bëgg maanaam di ñaan rek maanaam kii ñu may lii yàgg fi lool. waaw yàgg fi lool te wér. ñu yàgg fi lool yàgg topp ci ginnaawam daal. jërëjëf jërëjëf. Ba déedéet dinaa la. léegi kon yóbbu ko sëñ bi. waaw sëñ bi kontaan na. man.